di gërëm ñëpp di wax ni bële ñu passé maire eh, dafa génnoon moom tamit sunu réunion boobu fekkewu ko jaar na fii naam doog di dem la ko waraloon mooy keroog dafa am yoo xamante ni ñi ko doon dox moom mu associé associé si woon ñu ci muy lan piste de production yi ñu waroon a def fii moom maire mu boole woon ñi ci biir ñu koy ànd ak moom ba yàlla defoon waa Ageroute ñëw fi benn commission technique ñu waroon a ànd ak moom man mii sax waroon naa dem mais keroog réunion bee tax maire ni ma desal fii man ma dem moom mu ànd ak ñoom ñu wan leen fi ñu war a def piste de production yi ba yàlla def na ni ngeen ñëwaat fii tey mu tombe ni commencé nañu piste yooyu kañ démb démb lañ ko commencé kon gis ngeen li yàllay def bële bi ñu jàppee réunion bi commission bee doon ñëw ñu waroon dem taseeg moom tey ñu jàppaat réunion bi démb la ñu commencé eh, defal piste de production yi kon ñu wax ni aussi ñoo ngi sant yàlla bu baax ndax moom mii lépp lu ñu def dafa ni ñu lu ngeen def maa leen ko defloo fu ngeen di jëm jox naa leen cutis fu ngeen bëgg a dugg aussi wax leen ma ko bu amee blocage ñëw leen wax ma kon loolu aussi ci seen kanam dinañ ko ci gërëm bu baax ci yombal boobu nga xamante ni defal nañu ko ci mbir mi kon dañ koy sant ci seen kanam di ko gërëm mais maire di la seereel aussi suñu cant ci ñii waa sedd euh, rawatina ummi mi parce que diiru bi mu ñu boolee ci projet bii ba léegi ñëw nañ fi yàlla def ñu am fi ay formation yoo xamante ni ku ci nekk ci sa gone yi toog tey yow xëy na ànd nga ak ñoom gis nga leen ku ci nekk fu mu taxaw bu waxee nga ni kii fii lan fan la ko jàngee li ko waral mooy xëy na formation yi ñu defal ba ku ci nekk taxaw loo bëgg a wax nga mën koo wax ci yar ci teggin wax ko aussi ci anam boo xamante ni di nga ci am résultat te loolu moo am solo donc nag maire dinañ leen gërëm ci sa ci sa kanam ci loolu nga xamante ni def nañ ko ci ñun mu doon loo xamante ni un plus la ci yow loo xamante ni looy comptabiliser la ci sa bilan yow mii donc loolu wax dëgg yàlla dañ leen ci sant bu baax di leen gërëm bu baax ci loolu di wax ni rek comme ni ko ummi waxoon Euh, ñu formé fi ay nit ñoo xamante ni lépp loo xamante ni demande la ci Thiénaba euh, maanaam ñu Thiénaba war koo soxla donte ni nit ñi laajuñu ko ñoom ñi sax dinañu dem seet fan la ñu war a jaar ba loolu mën a am Thiénaba ba loolu mën a am ci tund wi donc loolu dafa am solo ci ci gox dafa am solo ci gox te ñoom ñi ngi ciy dox dox boo xamante ni macha allah ñi ngi ciy bay seen waar waaw barki Demba Ndiaye rek bi ñu waxtaanee ak waa ANAMO waxtaan nañu ba jox nañ ñu formation boo xamante ni y aura 15 personnes. yoo xam ne dinañ leen former ci en blanchisserie te loolu boole woon nañ ko ci demande citoyenne bi lépp it moom mii moo ñu daan yónni ñuy ànd ak moom di dem waxtaan ak ñooñu ba loolu tamit sotti donc yooyu yëpp doon ay anam yoo xamante ni wax dëgg yàlla macha allah yu am solo la mais nag ba tey ñu delloowaat ko yéen nii ba ngeen ñu formé ba ñu mën a am loo xamante ni dinañ taxaw ak nit ki wax ak moom ba mën cee am résultat jërëjëf. donc kon ñoo ngi sant yàlla bu baax ci euh, lëkkaloo bi nga xamante ni ñi ngi ko lëkkaloo ak. Euh, Euh, waa sedd yi euh, ci liggéey bi nga xamante ni ñi ngi koy def ci suñu gox mu doon liggéey boo xamante ni boo am solo la ndax euh, sedd daf ñu fekkoon mu ñëw jàppale ñu jàppale ñu ci li nga xamante ni moom formation bi nga xamante ni moom la ñu defal ba nga xamante ni ñun dinañ mën a taxaw plaider ay dossiers yoo xamante ni yu am solo la jëm si sunu gox ay dossiers yoo xamante ni sax kenn daawu ko laal dañ ko tegoon ci suuf tey jii yàlla dimbali nañu ba série de formation yooyu ñu am ñun permettre nañu tey bu ñu toogee waxtaan ñu ne ah waaw secteur bii kat gis nañ ni lii bu ñu ko ci defoon dina doon loo xamante ne lu am solo la ñu dem toog ak le maire waxtaan ak moom wala toog ak acteurs yi nga xamante ne moom lay concerné ñu waxtaan ak ñoom te yàlla dimbali nañu ba buñ ci waxtaan am nañ ci ay résultats euh, ñu loolu nag li ko waral muy renforcement de capacité yi wax naa ko sànq yi nga xamante ni defal nañu ko euh, ak euh, ummi sedd yi ak seen i partenaires renforcement de capacité yi ñu defal ba nga xamante ni tey ñun lépp loo xamante ni demande citoyenne la tey jii ñun mën nañoo taxaw défendre ko xam ni kat lii moo jaadu lii moo war fii lañ ko war a seetee fii lañ ko war a waxee waaye it naka lañ koy waxee parce que loolu am solo la xëy na bu njëkk mënoon nañu wax mais naka lañ koy waxee xëy na amoon nañ ci ñenn ñi amoon nañ ci problème waaye tey bi ñu defee série de formation yi am nañu technique yoo xamante ni tey dinañ waxtaan ak kilifa yi te bu ñu waxtaanee ñoom. dañ ci mën a am ay résultats yoo xamante ni yu am solo la ba tax na wax dëgg yàlla ñoo ngi sant yàlla bu baax euh, fii comme ni ñu ko waxee euh, ci wàllu santé aussi waxoon nañ ko bale bu njëkk amoon nañu ay jéego yoo xamante ni def nañ ko ci poste de santé bu jaayaan pour que ñu bëgg ko defaraat parce que poste de santé bi boo ko seetloo tey wax dëgg yàlla poste de santé bi dafa délabré wu complètement ñu bëggoon ko délocaliser

yóbbu ko ci seen i kilifa boobu ba léegi aussi ñoom la ñuy xaar pour mën cee am feedback mais aussi euh, muy lu am solo loo xamante ni ummi dañu ko wax léegi muy ay recommandation lu jëm ci waa subvention euh, euh, mutuelle yi mais sensibilisation surtout population bi pour que ñu gën a mën a adhérer ci mutuelle yi loolu aussi bàyyi nañ ci xel bu baax a baax ñi ngi ko doon def naam mais dañ ko bëgg a yokk defaat yeneen stratégie yoo xamante ni dañ gën a duggaat ci population yi pour gën leen a ñaax pour ñu mën a adhérer ci mutuelle yi mutuelle yi mën a am doole mais partenaires yi mën a sawar pour mën a ñëw jàppale leen ci seen liggéey boobu. li jëm ci accompagnement OCB yi euh, yàlla dimbali nañu aussi que fan yi waxtaan nañu am na ay partenaires yoo xamante ni ñëwoon nañ fi ñu ànd ak maire ànd ak waa fas Diom waxtaan ak partenaires yooyu mais bi ñu waxtaanee ak ñoom aussi signé nañu convention ak waa fas Diom yooyu. ba actuellement ñi ngi leen di defal ay série de formation yoo xamante ni mi ngi jëm ci transformation des fruits et légumes te ñoom it fas yéene nañu defal leen ay unité de transformation loolu aussi je crois que ni doon euh, lu am solo mais euh, beneen bi aussi jigéen ñi euh, ci seen bopp am na ay qui finan partenaire partenaires yu fi ñëwoon lu mel ni DER bi ba ñu déposé woon ci maire bi accompagner leen ñu defal leen ay études de projet ba ñu déposé woon seen étude mais ñu déposé woon aussi pour seen reconnaissance reconnaissance euh, juridique yooyu yëpp aussi mu doon loo xamante ni fas yéene nañu aussi topp ko surtout reconnaissance juridique bi ba ñu am seen euh, euh, reconnaissance seen récépissé boo xamante ni dañ koy téye mais ci loolu aussi comme recommandation yi ñu ummi dinañ jéem a tasale récépissé yooyu yëpp jéem a demaat Euh, fexe nuñ ko doxee ba récépissé yooyu attestat euh, comment dire récépissé yi mën a génn que ñu am seeni i récépissé mais fas yéene na su nañu aussi comme euh, bu jàggul rek war nañu waa CMS yi fii woo jigéen ñëpp ñu tase fii ñu waxtaan ak CMS ba mu d'accord pour jàppale jigéen ñooñu ci ay financement ci kaw loolu maire bi am na xaalis boo xamante ni sax yëkkati na ko pour jox ma ko mu toll ci deux cent mille pour que ñu mën a fexe ba nga xam ne jigéen ñooñu seen caution yi dañu leen ci jàppale ba nga xamante ni dinañ mën a génne euh, xaalis ci ci ci ci côté boobu. loolu aussi mu doon loo xamante ni lu am solo la loo xamante ni dañ ci gërëm maire bi ci action yooyu nga xamante ni def na ko euh, li jëm ci wàllu jigéen ñi mais du ñu yam foofu bëgg nañu financement yooyu bu génnee aussi ñu def un suivi rapproché ci jigéen ñooñu accompagner leen. Euh, xool aussi activité yi ñuy def nan lañ koy defee mais ñu jàppale leen ci activité yooyu mais bu boobaa aussi dinañ ñëw suñu partenaire yi mu mel ni ummi parce que moom wax na léegi disponibilité que ni suñ ko woowee moom dina ñëw jàppale ñu ci ci ci rapprochement boobu ci suivi boobu incha allah loolu aussi fas yéene nañ ko def bu baax a baax. li jëm aussi ci formation ak euh, emploi des jeunes. Euh, là aussi waxtaan nañu ak wa ANAMU parce que bële passé waxoon nañ ni ñi ngi fexé pour am ak ñom ben rencontre yalla def nañu am ak euh, gestionnaire bi rencontre ba waxtaan ak mom ba aujourd'hui laaj nañu ñu indil ko 15 jeunes yo xamanteni dañ leen former en blanchisserie euh, mu doon lo xamanteni c'est une première dans la zone parce que amul ci zone bi ñu nek à part Thiès suñu zone yi yëpp loolu amu fi loolu nag buñ ci formé ñooñu dina doon loo xamante ni dina doon lu am solo ndax suñu jigéen ñi fóot nañoo fóot ba sonn te loolu bu ñëwee dina leen alléger seen travaux te dina doon loo xamante ni lu am solo la donc euh, loolu aussi ñi ngi ciy sant bu baax waa ANAMO mais ñi ngi ciy sant encore une fois le maire mais di ci sant encore SEDD parce que ñoom ñi ñu permettre aussi ba ñu mën a dem di négocier yenn yi di ko waxtaan ba loolu mën a donc loolu moom euh, bu amee rek war nañ leen cee gërëm li jëm ci wàllu voie et piste de production yooyu it ma ngi rappelé ni euh, réunion bële ñu jàppoon mois bële bi fi ñëwé keroog maire dafa démone and ak wa Agéroute pour wan piste de production yoy fan la wara nek kérok keroog man mi dama warona dem mais réunion bi mo taxone ma dess maire démone na ba won ko tay ji ñu jappar réunion bi demb lañu commencer piste de production bu ngomène bu ñu paree war nañ ci def kiel jaayan ceneb donc je crois que ni lolu aussi don lo xamanteni yu am solo may wax ni aussi le GTS groupe technique de suivi bi nga xam moo fi nekk moom moo ànd aussi ak euh, sunu comité de suivi bi ñu ànd di dox loolu di ko doxal le maire di ko doxal la mairie di ko doxal les populations de Thiénaba pour que incha allah lépp loo xamante ni jaadu na fi war na fi war na fi mën a am ñu fexe ba nga xamante ni am na fi mbaa bu amul it fekk na bay nañ ci sunu waar dox nañ ci lañ ca war a dox ba tële ci mbaa leneen donc loolu aussi ñuy sant yàlla bu baax di sant ñëpp ñi nga xamante ni ñoo fi tase mais encore une fois di delloo cant gi ci waa sedd ñoom ñi nga xamante ni ñoo ñu jàppale ba tey lii nga xamante ni ñu mën ko def kon ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam. ñoo ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp bon tamit euh, di fël euh, di tamit di nuyu euh, suñu projet bi parce que bon bu ñu sedd bon dañuy ne sedd ñun waa Thiénaba ñoo ko moom parce que ñoo ko gën a bëgg bon vraiment moo tax am na lu bëri loo xam ni xam-xam bëri sedd vraiment sedd ñun dañoo ni ñun vraiment di sant ñëpp di tamit euh, madame euh, Oumy Seck vraiment ñoo koy sant bu baax di ko loxo la la koy dolle di parce que vraiment maire tamit li parce que ba mu ba wax ba xam ba wax wax vraiment moo ba ñu toogee wax ak moom carrément wax ko sunu euh, sunu doxalin dafa ne lii man maay partenaire numéro un vraiment ne lépp lu ngeen ciy def man ngeen koy defal. vraiment tamit nit ñi ciy toogal tamit ci population bi di waxtaan ak ñoom dañu ne tamit heure bu ngeen ñu soxlaa ak fu ngeen ñu soxla ñun ñoo ngi seen ginnaaw vraiment moo tax euh, grâce à SED ñoo ngi leen di sant di leen gën a tàllal loxo. tamit di leen bu leen ñu fàtte mu tamit euh, ñun daal xamuñu kenn xamuñu benn partenaire bu dul sedd daal loolu daal laa amoon ci lu ma doon bu France parce que nag euh, defe naa ni nee nañu peccum liir bu neexee ndey ja moo téye ci mbagg ya te ambassade France wax dëgg yàlla jàppale na bu baax sunu partenaire bi di ummi ba ummi tey mën a ñëw jàppale ñu ñun nii ci liggéey bi nga xamante ne moom la ñuy def. kon ku mel noonu aussi bu nekké fi nek Sénégal di fi liggéey liggéey bu mucc ayib jappalé aussi sunu partenaire bi ba tax mu meun ñoo jappalé kon momit war nañ ko sant bu baax war nañ ko gërëm bu baax wax deug yalla ci li taxawaay yooyu nga xamanté mom la am mais may déllu aussi di gërëm bu baax waa euh à travers euh, El Hadj Diallo parce que El Hadj aussi moom moo nekk gestionnaire bi nekk fi mais kérok biñu défé élément bi ci euh, Thiès euh, Info.

donc ku mel Osi aussi bu jotaay yi amé war nañ ko sant war nañ ko gëreum ci ay taxawayam aussi ci ñun ak rapidité bi nga xamanteni ni def nako birmi, ci mbir mi ba li nga xamanteni ni mëna am jëm si ci ñun kon loolu aussi dañ ko ci sante bu baax di ko bu baax ci loolu nga xamanteni ni def nako ko nak di di wat mbir mi ci wa sedd di delo mbir mi ci umi umi duñu noppi diko ko parce que nak je crois que ni mënon na def kiyam yamalako bir ties Thiès yóbbu ko mais bam ñu ci bolé ñun ni ba pare fonk ñu lool wax dëgg yàlla réunion bu am mu convoqué ñu ñu ñëw assister ci euh, def ay série de formation ba lii mën a am tey kon moom dinañ ko sant bu baax dinañ ko gërëm bu baax di gërëm ay partenaires am jërëjëf. ñu ci woon ay sax mais juste euh, quelques mots de remerciement hein, à l'endroit de la commune de Tchénaba par rapport à la disponibilité du maire son ouverture son engagement et sa compréhension du projet. Surtout ça. C'est un maire qui très tôt a compris la pertinence du projet de l'ambassade de France, qui est le renforcement de capacité de contrôle citoyen pour l'action publique. C'est vraiment un maire qui a vite compris et qui nous a donné toute sa disponibilité et son engagement. Euh, je vais terminer par quelques mots en Wolof pour voir que dañuy gërëm di sant commune bi parce que nag commune yëpp lañuy def waaye xam naa ne ba ñoom desuñu gannaaw benn yoon. ba li tax boo mën a desuñu gannaaw benn yoon mooy bañ fi dalee di fi daje ba tey boo wàññee benn ñaareel ba maire bi teew na kon kooku dégg nañu kooku comprendre na li nga xam ne mooy importance su projet bi waaye ñi nga xam ne ñoom la tànnoon yebal ko ci ñum muy waa comité de suivi bi. ñoom itam lañ leen tànnee xam nañ ko ndax dañu ne dañ leen a tànn ci biiri tànneef cene ba dayul ni dañ leen jukkat ci biir cene ba kon ki nga jukki dugal ko ci dara mu di ko doxee di ko waxee dem ba meeram ak waa population bi adhéré ci ñoo jar nañu delloo jukkal dañ leen di ñaanal rek yàlla na seen taxawaay yàgg di ñaanal seen maire bi ni mu leen di wéttale mu continuer di leen gën di wéttale noonu ndax ñoom seen préoccupation yi ngeen yi nga xam ne moom lañ jël daanaka lu ci bëri sotti na ndax la tax ba ñu sotti ñoom dañoo xamoon lay seen soxla soxla boo ko xamee rek man koo faj kon ci kàddu yooyu rek laay jeexale di gërëm encore une fois ñëpp di sant ñëpp di leen ñaanal lii ñu xam ne tàmbali nañ ko ñu mën koy wéyal ndax soxlay doomi aadama la te tant que doomi aadama mu ngi fi ay soxlaam duñ fi jóg kon aadama ci équipe bu sedd ak turu projet bi nga xam ne mooy ambassade de France def initiative bi nga xam ne c'est un projet innovant de la société civile ñu ngi leen di gërëm di leen sant waa Thiès Info nag moom duñ leen gërëm dañ leen di bàyyi ak yàlla mu bàyyi leen ak seen xam-xam bàyyi leen ak seen jot ak seen mën-mën parce que nag booy def dara ñu di la ko wasaareel kooka deselatu la dara kon jërë ngeen jëf yàlla yàlla mottali stagiaires yi nga xam ne ñoom lañ bokkal liggéey bi muy Adrien ak Alexandre nga xam ne bu ma sonnee ñu ne kaay ñu dem su ma nee dem mënagu dem ñu ne nañ la jiitu ji kon ñun ñëpp amalante nañ ngërëm ak sant yàlla na yàlla dolli jàmm yàlla bu ma doon sunu mujjeelum ndaje yàlla defal ñu ndam ci li ñuy def ba bu ëllëgee duñ ko réccu génération yi ciy topp mën a roy ci sunuy tànk jërë ngeen jëf fii ci Thiénaba mooy zone centre zone nord mooy bi ngeen def Diayane zone est mooy bi ngeen def Kayre kon soo ko seetee ëmb na commune bi yëpp ndax commune bi ñetti zone la am zone bu nekk am ngeen fa ZIT boo xam ni am ngeen fa fu ngeen di intervenir eh, loolu nag muy lu am solo loo xam tey li ma décidé woon mooy ànd ak yéen réunion bi ba mu jeex parce que nag yu ci bari day tombe du ma am jot du ma ko fekkee mais tey moom waxan naa aadama ni ko oh, damay toog ànd ko ak yéen mais jaam ak bëgg-bëggam yàlla ak dogalam parce que dafa am benn ambassade buy ñëw ci école jaayam tay aussi ma am sama benn mbokk bu wañiko ci keur njaay lo loolu motax nama don def rek lay defat bayyi fi adama parce que adama su toge rek mel ni man ma tok waye en tout cas dal ma ngi di sante bu baax ma ngi di gërëm loolu la bëgg na duggal bala ma duggal ñaan gi tay di la jox sama engagement ni mboolem lu ngeen proposer loy doxal mbir mi une allah bi na ba dina ko accorder loolu moom amul sax euh, xel yaar ñun bokkuñu ci commune yoo xam danay gis partenaire di ko jéem a koñe wala ñuy seet sax lu muy def ak lu mu dëla parce que ku amul ban bay bay wut partenaire soo xasee am da ngay ubbiku parce que ubbiku dara mënoo ko am mukk tànk yaataloo sa boo yaatalee sa te am ay calcul yooyu def lu bari dalay échappé parce que ñun dañuy politique ginnaaw dañuy politique nag lépp loo xam ne mën naa mën nañ ko am ci développement su boobaa ñun dañu ci ànd te it dañ ciy kontaan kon soxna si ñu ngi lay sant bu baax e, di la gërëm di gërëm sa partenaires yi nga xam ne ñoom nga àndal parce que ñoom bu doon ñoom rek mën na noo ñu a ñëw fii e, li leen indi fii yow la kon cant gi ci yow lañ koy jëkke di la sant di la gërëm mais di la gën a tàllalaat loxo ne bul yam ci rek leneen loo xam ne xalaat nga ni mën naa développé commune Thiénaba soo nu ko andee insaara bi su ko aadama yëgee dina dinaa ko yëg te su ma ko yëg ko accordé te conseil municipal bi ñëpp benn lañu parce que liggéey rek moo taxat ñu teg ñu ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm kon ñu jàng fatiha eh, fàllaxe ak naasi salaatul fatiha parce que fàllaxe ak naasi ëmb na lépp mooy buntu alxuraan te buntu alxuraan boo ko xasee def tëj gi mooy salaatul fatiha kon ñu jàng fatiha eh, ak fàllaxe ak naasi ak salaatul fatiha